Idrissa Ndiaye sëtu Lëg Daawar bi ñu ñëw Thiès fekk la fi muy dëkk boo xamante ni ñëpp xamee nañ la ko tey lan moo waral sa teewaay ci làmb ji. aouzu billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si bi sant suñuy ñaari waajur di nuyu suñu sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq di nuyu le grand jaraaf di ko rawatina Thiès gi nga xam ni moom laa yeewoo maa ngi nuyu waa Thiès gépp tudd Thiès gépp di leen nuyu. làmb ji sa teewaay ci làmb. waaw làmb ji moom damaa ñëw seetaan si rek yaa ma gën a xam. dañuy ñëw seetaan parce dañoo bokk cees tamit ñu gis Assane Ndiaye ñëw fi di fi tëgg te tey man ak moom xamante nañ depuis Russie ñu ñëw toog seetaan waaw. ñu jékki-jékki benn moment di gis Idrissa Ndiaye mu ngi jaabante diggante Gambie ak Sénégal relation boobu lal la. waaw euh, relation boobu jàmm ak salaam rek la sa copain moo dox loolu ba loolu am muy Jamaïcain mu doon sama waay doon sama xarit tamit waa Gambie nangul ma jox ma bopp. ma fay dem di liggéey di faj soxla jaamu yàlla di dimbali population Gambie bi yëpp rawatina sax population Sénégal gi nga xam moom laa nekk waaw. am na ci ñoo ci ñaanal ci làmb ji actuellement. waa am na mbër boo xam nag mbëru R100 la te man R100 laa bokk dama koy ñaanal yàlla may ko ndam muy Pambay ñun lépp lu R100 bokk rek si lañ bokk ndax su ma ñëwee Thiès ba am fi li ma fi am yàlla waa r la te mbëru R100 la kon dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam. dégg nga Pël géeju bi ñu war a xar géej gi nga xamante ne nee nañ sa maam moo ko moom dayoo xam nga ci dara Kounkandé sëriñ bi nga xamante ne actuellement moo yore buzz réew mi da ko a xar jour tam xarit wala laan deme tam xarit li ma wax rek laay waxaat ci kàttanu yàlla du xar dara du def dara billaahi wallaahi wa taala du xar dara su xaree ma tëjaat lépp du xar dara na ko fekke ba tal ko sax nee xar labal ay noonam déggul ma na na ko fekkee ba tal ko na ko fekke ba tal ko ci kàttan yàlla. samaam samaam lëg daawoon ngay sëtu lëg daawoon tey kunkande di ñaankat ñëw Dakar euh, taxaw dëggal boppam ne jouru korité jouru tam xarit day xar géej gi ñi war a dem France dem France ñi war a dem Belgique dem Belgique ba pare day labal ay noona maanaam sëriñ su ndaw déggaluma jouru tam xarit yéen journaliste média bi yëpp laay wax point de presse laa def biir Soumbédioune dañ koy xaar ba ba ba cinq heures du matin ñu na na ko fekkee ba tal ko rek. bu demee ba ci biir mu changé destination. destination la mais moo ne day xar kay na xar. ndax Sénégal réewu jàmm la. bu ko kilifa yi ñaanee njëkk mu bàyyi nag. Kounkandé amul benn kilifa bu yor numéro muy xalifa général Layen muy xalifa général Mouride muy xalifa général Tidiane muy xalifa général Ceneba Ceneba yi Ndiassane kenn amul ku si yor numéro amul ku ko si woo ñaan njëkk parce que ñooñu dugguñu si affaire yii ndax li affaire bakkan la. yéen sëriñ ay noonam ngeen ndax nee nga du ciy dugal ay noonam labal leen ñun moom bu ñu def France da ngeen di bàyyi di def rek yaa xayta yéen moom ku ci dugg mu labal la. xam nga yàlla suñ borom moo ñu sak dina am ñu bëgg dina am ñu bañ mais man noonoo maag moom defu maag moom concurrence bokkuñu sax yoon barke sëñ Fallou li ma mën mënu ko de. kon ñu joxe rendez-vous ba suuru tam xarit incha c'est point de presse. déggoo lu may naa ko may naa ko plateau su bëggee yéen ngeen organiser plateau man ak moom ñu toog may naa ko plateau donc ngeen def may def. ah loolu kay bu bëggee na ñëw wasaare ñu def ko wala bawal su bëggee biir këram. jaajëf jaajëf Idriss.